salaamaaleykum wa rahmatullah mboole mi ñëw nii ñëpp mel ni am na mbokk mu doon laaj lii nga xam ne moom la ñuy tudde gowe ndax am na yu mën a ci wàllu wér-gu-yaram xëy na am na ñu ciy dégg gowe bi ngeen xam te li si gën a siiw fii mooy ñu koy jëfandikoo comme cuuraay te lu ci am solo sax ci wàllu cuuraay ndax dafay dindi xet gu naqari waaw cuuraayu goowe sax dafay neexal xel waaw bi waaw dafay calmer ay neer waaw def ko si ànd rek cuuraay yooyu yëpp dafa bokk ci ay njëriñam waaw loolu lu wér la li nga xam ne dañ ko fekk ci gooye waaye soo dellu nag ci wàllu wér-gu-yaram dañ koy jëfandikoo ci anam bu bari surtout jigéen ñi jigéen ñi moom dañ leen ko digal waaw jigéen ju doog am doom euh, jigéen juy sàkku am doom waaw euh, jigéen ju ëmboon xëy na yàlla na toog ëmb ba yeggul mu def li ñuy tuddee fausse couche wala ñenn ñi di ko tuddee avortement ñooñu ñëpp dañ leen di digal kowe waaw boo tollee ci ëmb nag gisuñ gisuñ ci gàllankoor waaye dañuy prudent rek moo tax ñu ne jigéen wérul moom na xaw moytandiku rek waaw ba yàlla may ko jàmm waaw kon nag ci ñetti anam yooyu daal moom yi ba njëkk lim ci lañ koy gën a digle ci jigéen ñi waaye ñu bëri dañoo jàpp ne mbiru jigéen dong la waaye même góor ñi am na yenn gàllankoor yoo xam ne bu leen dale mu dañoo defandikoo go gowe te ma lim ci yenn nag ndax lu mel nii xel muy tee am kenn ku ne mën na laa dal waaw kooku gowe daf ci mën dara waaye boo koy jëfandikoo day tax sa sa yax yi sedd waaw li ñuy tuddee douleur musculaire métit yooyu daf ci daf la ciy dimbale baax ba ci wàllu say xëtër daf koy aar ba ci wàllu colon bi ñi faral di ko jëfandikoo moom gowe duñu am mukk cancer du colon yàlla mën na leen ci mën na leen ci suturaal waaye lu weesu loolu sax moom gowe dafay dooleel say soldaaru yaram sa système immunitaire ba jàngoro yu bari nga mucc ci ba ci wàllu estomac ba ci jàngoro xol yi ba ci jafe-jafe téye téye sa sa sa sa wàllu tuur ndox am na ñu amee jafe-jafe boobu dañuy tokkal seen tubéy ndax feebar la si ñoom ñi bu jàngoro jooju ñuy tuddee incontinence urinaire euh, gobe dafa bokk ci li nga xam ne ni ko fajee ba ci jàngoroy neer yi ba ki nga xam ne dafay toog di rëccale ngelaw di génn ci moom euh, jëfandikoo gowe mun na la koo fajal ba ci ki bopp bu métti yàpp boo koy jëfandikoo daf lay tuurloo ndox moom gowe tuur ndox boobu am na solo ndax day waral ngay éliminer yenn jàngoro yi ba ci xetu gémmiñ waaw mën na ci dara ba ci biir buy daw wàccu xel muy tee waaw ñi amee sa stress digal lañ leen gowe ba ci jàngoro jooju ñuy tuddee épilepsie waaw kooku dañ ko koy bokk na ci koy traité épilepsie bu dikkalee nit ki da koy def ay crise muy daanu te daf koy bett euh, ñooñu dañ leen di digal ñuy jëfandikoo gawe ndax mën na ci dara ba ci ki amee yaram lool te bëgg a wàññeeku waaw dafay raxas biir bam set wecc waaw dafay aare ci wàll yi ñu tuddee fibrome ak kyste ak myome ak endométriose jàngoro yooyu tawat yooyu di di di yi jigéen ñi waaw dañ koy jëfandikoo de dafa leen ci aar ba ci kii ñàkk ñàkk bu jéggi dayo waaw kooku it gowe digal nañ ko ko ndax am na ci am na ci solo ba ci infection urinaire di tur ndox muy tàng di saf xeetu infection yooyu waaw dañ ko ciy digle waaw ki koy jëfandikoo tax sa deret di daw normal ci sa yaram ndax loolu chance la waaw suy deret di daw normal mu nga mucc ci jàngoroy tension tension bu yëg hypertension mën nga mucc ci li ñuy tuddee AVC wala nga amee saqat si nga xam ne ci allergie nga ko jëlee digal nañ ne gowe wala nga amee jabet waaw surtout jabet bi ñuy tuddee jabet de type 2 waaw wala jàngoro jàpp sa estomac euh, méttitu estomac ñu tuddee euh, douleur gastrique waaw wala méttit yi nga xam ne sax wala jàngoro yi nga xam ne dafay jàpp butit yi waaw ndax estomac nu muy feebare noonu lay butit di wax naa liñ ci léegi lu mel ni colon bi waaw dafa la ci dafa la ci aar waaw ñu digal ko jigéen ñi comme ni ma ko waxee ñoom ci anam yu bëri buñ doogee am doom bu yàlla dogalee ñu aportement dal leen wala guñ gisee mbaax ba set ñoom moom dañ leen ko digal ci anam boobu waaw ci wàllu li ñu tuddee bien-être am na am na lu am na luñ ci tegtal buñ ci mën a joxe waaw bu ki nga xam ne dafa kawar ay kawar yu bari ci yaram te bëgg a def loolu ñuy tuddee épilation waaw léegi dañ ciy digle gowe waaw dañ ciy wut euh, sunguf si waaw boobu ba dañ koy wàll def ko sunguf nga jaxasi ko huile d'olive ba mu nekk benn pat nga diw ko ci fi kawar yi nekk xaar diir doog ko wat ba mu set wecc waaw bu ko defee rek da koy dindi am na ñu loolu sonal kawar yu bëri ci seen tànk wala ci seen eh, loxo wala yeneen parti yaram kon nag moom dañ koy jëfandikoo di ko defee loolu ñuy tuddee épilation ci tubaab ci wàllu naan quoi ndax ma lim yépp nag bu dee bëgg nga bëgg nga ci nga cee defar gowe di ko naan boo koy defarit dam li may digle mooy gowe bu bees tàq ngay wuti waxuma gowe bii nga xam ne dañ ko def li jéeg yi du tuddee nëbal nëbal waaw di aw ñu ci boole pour cuuraay ak yooyu da ngay wut bees tàq nga raxas ko ba set wecc nag waaw nga raxas ba mu set nga jël ci fukki doom nga raxas ba mu set wecc nga baxal ko ci litre ndox genn wàll fukki minute ba fukki minute ak juróom ndax lu mu bon bon mu des ci mu des benn litre ci soo ko baxalee waaw bàyyi ba mu sedd nag nga sol ko ci sa butéel li ma ciy déglee mooy ñu boole ko ceeb ndax daf ci da koy yokk njëriñ te daf ci am solo tax sax mu gën a neex naan léegi boo baxalee ba mu bax nga sotti ko sa butéel nga bàyyi ba mu sedd nga def ko sa butéel nga wut sa benn caru ceeb raxas ba mu set ci butéel bi moom tamit. mu mu mu parfumer ko gën koo neexal waaye gën ko yokk njëriñ nag ndax euh, ceeb boobu dafay dooleel gowe bi gowe rek doyoon na waaye boole ko ceeb dafay tax njëriñ yi yi nga xam ne ma wax naa ko nga gën ko ci fekk booba su dee jigéen moom dama koy digal mooy jigéen tool toll ci gis mbaax de ko faral di def saa yoo gisee mbaax ba pare nga jël nga nga nga defar ko nii ma ko waxee nga jël ci kaas gu mag soo xëyee ba ndékki ak boo kaas bu kaas bu digg doomu rek mën na mën na bañ nekk kaas otaay ndax kaas otaay tuuti na waaye kaasu ndikki kaay bu yem bu dee nag ki xam ne du jigéen góor la bu koy bëgg traité wu mën na ko jëfandikoo ci yeneen jamono yu bokkul ak jamono ji ndax jigéen ñi gis mbaax laay digal loolu suñ gisee mbaax ba set ñu jëfandikoo kaas suba kaas ngoon ñu koy jëfandikoo ñetti fan bu juróomi fan bu bëree ba bëri saa yuñ mbaax ba noppi waaw si yeneen jamono nag ci wala boog ci ñeneen ñi ñoom mun nañ faral di ko jëfandikoo ci yeneen période kon nag yi nga xam ne lim naa ko ay njëriñ la ci lii nga xam ne moom lañuy ñuy tuddee gome ginnaaw loolu nag balaa ñoo jeexal waxtaan wi eh, dafa am garab bu ñu liggéey tuddee ko la roquette waaw garab bi de ah ñi ko jot a jël defe naa ne xam nañ lu ci ne xam ne njëriñ ci ne garab gu bëri njëriñ la waaw boo koy jëlee sa yaram day oyof xeetu jàngoro yu bari yu fekkoon sa yaram da koy dindi te damay faral di wax ne loolu bénéfice la ci garab gi waaye garab gi lu ko tax a jóg mooy góor gu tële wala góor gu néew kattan yaa xam lu yàgg la ci yow wala dalaa dab um ci mën a doon garab gi dala koy teretel ba nga jotaat sa bopp ndox nag euh, ñàkkum góor lu metti la ci góor bu ko defee ñu fàttali nit ñi ne garab gi ñu ngi koy liggéey ba tey macha allah ku ci soxla rek da nga ci am ci kàttanu yàlla boo jokkoo ak man man professeur Abbas sama numéro 77 la 786 65 19 ku ma ci woo di nga am ci garab bi incha allah maa féete Dakar kon nag surtout waa Dakar mun nañ ma woo euh, su dee ñi féetee Mbour mun nañ woo Imam Diène ci 77 636 66 36 Imam Diène moo féete Mbour su dee fële ca. Touba mën nañ woo sëñ Moustapha Diop ci 76 383 87 34 wala ñu woo ko ci 77 213 16 19 sëñ Moustapha moo féete foofu ci Touba buñ ko woowee tamit mën nañoo am ci garab gi ndax la roquette ñàkk ko am erreur la waaw ñàkk ko am erreur la de waaw ndax euh, gàllankoor ci wàllu sëy nag da ko yëngal sëy yu bëri buñ buñ ci liggéey garab yombal ko moom mën a traité loolu ah macha allah dañ ciy jaamu yàlla ndax yombal nañ ko seerum waaw ah, ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen bërëb yi te limuma bërëb yooyu buñ jokkook man moo lañ jokko imam Diène dañ joxe bañ jot ci incha allah loolu amul benn problème waaw ah, kon nag loolu dañ ko boole woon rek ci waxtaan wi ñu doon waxtaanee léegi ci wàllu ngowe waaw ah, laa raket nag jotagul ak gowe dara dañ doon dañ ko cee boole ci publicité rek waaye gooy moo doon solos waxtaan si tey asalaamaaleykum wa rahmatullah